xonsu billahi mina seytaani rajimi bisimilahi rahmaani rahimi sama gàcceeg tey gii ma xëyee en tant que sénégalais yàlla bu ma taseeg moom yow mal xiyaam xam ngeen yéen képp kuy def lu bon rek amel na leen jukkal la majeure partie des internautes sénégalaises képp kuy def lu bon ci internet bi rek amel na leen jukkal su ko waxee su ko waxut. Lili Dior santoon na leen fi bu ngeen ko fàttee à l'époque temps yee ci ginnaaw rek Lili Dior santoon na leen fi yéen ñëpp da ko fàtte. génnoon na delloo leen jukkal képp kuy def lu bon laa wax wala muy wax lu bon ci internet bi ci internet bi ma ne bu leen santul rek gorewut borom ñaari tur yi moo génn def na analyse nee na du ma affiché turu compte bi sax di ko may promotion duma tudd tur bi mais su ma ko affiché nii ak analyse bi di ngeen xam ki may wax parce que yéen a koy suivre nee na ginnaaw bi France jëlee première loolu la xibaar yi xëyee tey nee na Sénégal ñoo jël. deuxième Mme Sénégal génnuñ ci les 5 premières Manam ci Côte d'Ivoire ñoo ci top Mali ak Guinée Conakry France bu jito Sénégal ñu nee na ñoo ci top ci suivre koy di utiliser ay son information bi boko ko bo en tant que sénégalais bo amé gatché yow bindal rus rek nga avancer bu ci lenen bindal rek nga avancer man mom dama rus ba ni amul parce que ma ngi xaar maanaam ñu dooleel ñeneen ñu dul ñii parce que la même personne bi abonné ci kontam ba may ko dooleel na le xam nga analyse moom du fen bu nekkoon dafa génn sos sax ñu xam ne da koo sos mais xam nga sosut analyse bi moo ko génnee plateforme TikTok bi ay rebo ñoo koy contrôler rebo yi ñii gën a xool sa vidéo boo tapee sa analyse mu won la ko réew yëpp ñii ñoo lay gën a suivre ñii ñoo la gën a abonné <laughs> kon xam ngeen c'est la réalité même personne bi ñooy génnaan naan rangu cagala dafa war a génn dëkk bi ñooy génnaa naan kiin bis cagala dafa war a abal dëkk bi waru sol lu bon parce que ci pays musulman la ñu nekk ñooy génnaa naan baara góor du fecc turu baax lañ la tuddee ñooy génnaa naan maam jaara mi nekk Canada xaw ma Amérique méritoowul turam bi même personne bi ñooy ñëwaat jàpp ñii di leen abonné di leen dooleel. léegi nag c'est à vous de juger man dama fi ñëwoon rek pour jox leen info bi nee na cinq premières yi Sénégal génn ci. nee na ginnaaw bi France jiitoo Sénégal a ci top ci ñi koy dooleel moo tax nee na ay son wu moom da koy utiliser bu baax di ko TikTok loolu la wax léegi yow boo rusee en tant que sénégalais yow bindal gàcce rek wala nga bind rus bu ndaw te jàll mën ngaa avancer laajuma la leneen war ngeen a xoolaat seen bopp war ngeen a defaraat lii ay preuve la yoo xam ne nii lii amu leen lu ngeen wax. Una, rena, una bebena